Je fi daje pour euh, organiser li ñuy wax euh, réunion bu bi ci comité de pilotage bu projet boo xam ne mu ngi ministère de l'éducation nationale ñu tuddee ko projet d'amélioration des performances du système éducatif mooy euh, projet boo xam ne dafay jàppale ministère éducation nationale ci système bi pour que ñu gën a jëm ci kanam ci ci njàng mi ak njàngale bi pour gën koo euh, améliorer defaraat ko bu baax a baax xam nga amoon nañ fii li ñuy wax paquet et dafa nekk ci biir le paquet paquet moom ñëpp xam nañ ko moom mooy euh, bi nga xam ne programme bi nga xam ne dina euh, defaraat bu baax a baax suñ système bi donc PAPS bi dafa ñëw pour gën a jàppale système bi ci anam yooyu. moom projet la boo xam ne dina euh, ëmb na ci juróomi at ndax 2000 fin 2022 la commencé ba 2027 te dina euh, indi dugal ci biir système bi euh, juróom fukki juróom fukk ak juróom ñaari milliards 57 milliards nga ne loolu du lu ndaw ci te ren nga xam ne PAPS bi mu ngi commencé woon ci mois de juillet bi rek ba ci 31 décembre lu ëpp 10 milliards génne nañ ko di ci liggéey ak direction yi ak structure yi ci terrain bi pour que li nga xam ne mooy njàng bi ak njàngale bi mu mën a gën a jëm kanam donc loolu def nañ ko tey nag dañoo toog pour xool ci juróomi weer yi ñu liggéey lan lañ def mooy bilan bi lan la ñu liggéey lan la ñu am comme résultat yu baax lan moo nekk difficulté yi nga xam ne euh, euh, jànkoonteel nañ ko te euh, mu mu xaw ñoo ralentir tuuti ñu waxtaan ci ba ba ba nga xam ne suñu démarré ren ci 2024 bi parce que tey tamit dinañ présenter plan de travail bi mooy lépp li nga xam ne ne ay liggéey la yu ñu war a def ci 2024 dañ koy présenté nii fii ba weer bi di dee ñu valider ko discuter ci bu baax a baax a baax ak banque mondiale ak yi nga xam ne ñoom ñëpp projet bi ëmb nañ ñu waxtaan ci ba juboo ñu am benn plan de travail boo xam ne valider nañ ko loolu bu ko amee ci mois de janvier bi dinañ mën a gën a liggéey ci composante yi nga xam ne ñoo nekk ministère de l'éducation nationale te di liggéey ak PAPS pour gën a euh, jëmale kanam système bi te ci projet bi PAPS dina jàppale lu ëpp junni daara te loolu commencé na dafa nekk en cours commencé na te loolu lu am solo la fii ba projet bi di jeex ñu mën leen jàppale bu baax a baax a baax euh, ñu ngi jàppale euh, direction yi tamit ak tamit ci jàngale mathématique ak science Euh, amna ay lycée yu ñuy tabax fële euh, Kaffrine ak euh, Sédhiou sore nañ trop ndax fi mu ne presque ñu ci finition yi lycée yo xam ren ci année bi ren dina ubbi bu soobee yàlla te dinañu mëna gëna jappalé pour que njàngale science ak mathématiques yi ñuy wax té Sénégal taxaw ci bu baax ci vision chef de l'État ak ministre taxaw ci mom tam pour réaliser cette vision là lolu ñaari lycée yoy dinañu ci jappalé bu baaxa a baax langue nationale yi ci enseignement bilingue bi loolu yëpp PAPS bi euh, commencé nañ ko di ko def ci suñ système. waaw jafe-jafe yi. PAPS bi dafa ñëw di continuer li nga xam ne paquet mu ngi ko doon def mais xam nga boo jógee ci benn projet di dem ci beneen bi rek pour que mu jàpp dafay xaw a jafe ndax. am na yu bare yoo xam ne gàllankooroon na projet boobu fale ko ñu régler ko ba pare bi soog a taxaw léegi bii mu ngi taxaw ci mois de juillet nga xam ne mu ngi waroon démarrer ci début octobre 2022 mu dem ba juillet 2023 xam nga loolu kon bokk na ci gàllankoor lu toog ay weeri weer mënul démarrer détails yu nga xam ne moo tax loolu duma ko firi duma ci ñëwaat mais am na détails yu bare yoo xam ne ne il fallait que ñu régler ko pour que ñu mën a euh, commencer projet PAPS bi. retard boobu nag moo ñu indi mois de juillet ba 31 décembre xam nga kon juróomi weer rek mais ci juróomi weer yi. au moins décaissé nañ ci lu ëpp fukki milliards te liggéey nañ ci ak direction nationale yi ak structure yi nga xam ne ñëpp dañu ëmb ci biir PAPS liggéey ci ci lycée yi ma leen wax sànq ci lycée d'intégration nationale euh, pour l'équité et la qualité mooy li ñu wax li ne ñu ngi ci tabax benn Kaffrine tabax benn Sédhiou yooyu ay lycée yoo xam ne ñoom ñaar rek dinañ dem jël 14 milliards ci tabax bi ak ci équipement mu nekk ay lycée de dernière génération pour que ñun suñ jàngale mathématiques sciences et autres là, ñu mën ko def ci anam yi gën a rafet